am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jégleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ci seen émission al fatawa bi ngeen di ànd ak seyxana docteur Mouhammad Ahmad Lo hafidahullahu waraa tey ji bisu àllarba ji ñaar fukki fan ak ci rabiul awal mille quatre cent quarante quatre tombeek dix vingt deux moo xam ñu ni topp fii ci biir Sénégal wala ci bitim réew ci continant yëpp ci Europe ci Amérique ci Asie ci Afrique ci Australie yeneen yi ni mel ñu ñuy topp ci leeral fm bi ci Louga wala keppaar ga ca Kaolack wala salaam ba ca Mbàkke wala leeral ba ca Podor wala leeral ba ca Ziguinchor ñu ñuy topp ci réseaux sociaux yi moo xam whatsapp bi la youtube bi la facebook bi la ak yeneen yi ci des moo ñu ñuy topp ci dégg diine xam sa diine xam lu sa diine derma lu officiel wala sax muy groupe bi fatawa soppee docteur Mohamed Ahmed Lo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci santeni santeni groupe yi nga xam ni fa la fatawa di jaar ñu ngi ñaan yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko ci bisu tey bii jazakumullahu xayran in alhamdulilahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu déglu kon noo ngi del si waat ànd ak yéen ci jotaay bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu bool ñu tawfiq ak ndimbal ak yërmande Cheikh Abdallah danaa bu ñu la nuyoo yaa ki nga nekkoon ci xarala bi di leen wax salaamaaleykum kon bismillah di daal di jublu ci liggéey bi jazakum allahu xayra barakallahu fikum cheikhana cheikh bi kii nee na moom chauffeur benn ministre la ñu nekk fee ca jam ñaajo waaye nee na yeesa ñett jumaa ngi nii fu mu waaja ba toog ci jumaa ji di xaar xutba rek euh, ministre bi woo ko ni ko tam fu ñuy dem neen nag mu am ci njàqareb xol mu ni daal nu muy def te moom chauffeur la loolu mooy liggéeyam alhamdulillah xam naa ministre am boobu bu fekkee ak jullit la euh, te liggéey ba muy liggéey nekkul lu jàmp loo xam ne lu jéggi dayo la de moom la gënoon mooy mu ñëw julli moom ajjuma ba noppi door delluwaat ci ay yitteem su fekkee ne lu mel ne lii mu wax daa nar continuer moom say boobu mu seet beneen liggéey ndax ak jullit moom du bàyyi jullit ajjuma ngir ab liggéey su fekkee nag dafa am fan yu gaar yoo xam ne dafa nekk ci benn urgence boo xam ne moo tax ministre bi di génn waxtu woowu tam wóor ko ne loolu day jeex xëy na lu mel noonu dana ko mën a tolore eh, noonu mu ko waxee ab diir ndax tardewul àjjuma ji ci tànnuk boppam lu gaar la su boobaa loola mën naa bañ a àgg fenn fi ci gravité waaye su fekkee lu nar a continuer la nag kooku moom say ba mu seeti beneen liggéey wallahu taala alam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana bi soxna si nee na moom karaw boppam bi dafa dafa xaw a daggatoo daal tolloowul mu ne ndax dina dagan ci moom mu kub ko ba mu tolloo ñu góor ñi di watoo daal noonu ba mu tolloo alhamdulilah waaw kawar ak jigéen bu jekkul de mu jekkal ko yu gudd ya mu wàññi leen loola moom dara nekku ci kenn terewu ko de naam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikh na cheikh bi kii nee na moom ajoon na màkka waaye nee na ginnaaw gi dafa def bàkkaar bu rëy ndax nee na dafa njaalo nee na nag wax dëgg yàlla bépp xeetu tuub nee na def na ko te metti na ko loolit mu ne nag dafa bëgg a ajiwaat ndax léegi day ajalit baayam bi nga xam ne mosu ci a aj te faatu na wala day ajalaat boppam ndax euh, bàkkaar boobu mu defoon alhamdulilah kooki aji ba ñëw mu def bakkaar bu mag di wax ne tuub na ko liñ koy xamal mooy bakkaar moom ku ko def boo ko tuubee te tuub ga dëggu sunu borom tabaraka wa taala jéggal la ko mu ngi wax ne walladina laa yadcuuna maca allahi ilahan axara wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaqi wala yaznuun wa man yafal dalika yalqa asama yudaacaf lahu alcadabu yowma alqiyamati wa yaxludu fihi muhaana illa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa fa ulaika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuuran raxiima borom bi tabaraka wa taala nee na ña doon bokkaale di ñaan ku dul yàlla ña nga xam ne dañoo rey bakkan ci lu dul dëgg ña nga xam ne dañoo njaaloo ñooñu ñëpp seen bàkkaar rëy na te mbugal muñ ful moo leen di xaar lu dul koo xam ne nag nee na dafa tuub boole ko ak di jëf-jëf ju baax ñooñu borom bi tabaraka wa taala ñëwee na yemul ci jéggal leen waaye seen jëf yu ñaaw yañ jëfoon dañ koy soppi ay jëf yu rafet ñu am ci tuyaaba sunu borom tabaraka wa ko am yërmande la ak jéggalaa kon la kon moom bu fekkee ne wóor na ko ne tuub na tuub bu rafet te fa sëqal yéene dellu ci bàkkaar bu mag boobu yi def na li ko wax ajja nag jotewul dara ak loolu yi mu def su ko tuubul woon it teewut moom aj gi lislaam sàkku ci moom muy su amee alal am kàttan mu dem aji ginnaaw moom dem na aj ba ñëw matal na ay ponkam ak ci sartam kon ajug lislaam moom aj na ko ala kulli xaal moo xam gannaaw bi lu mën a def ci bàkkaar rek lu mu defut ñoo ci loo mën a doom rek moom aj gaa fa ñu bari nag seen xel mooy aj moom pour dindi bàkkaar doog nga ko tax a jóg déet day farata joo xam ne jullit bi da ko war a def su ko mënee ni la julli ware parce que ware la noonu yeneen war la aj itam soo ko mënee noon la la ware mu bokk nag ci ay njëriñam mooy day euh, ni bàkkaar day far bàkkaar loolu ci ay njëriñam la bokk waaye lenn njëriñ la ci ay njëriñam ñu bari nag dañoo yaakaar ne rek moom saaboo boo defee bàkkaar ba mu bari daal yow jëlal si kii rek dara dem aji su ko defee boo demee ñu fab say bàkkaar boo del siwaatee nga nekkaat si la nga nekkoon mbir ma moom demewul noonu ala kulli xaal tuub moom dangay ngay dogu ne li nga defoon duutoo ci dellu mukk waaye nuur ci bàkkaar ba noppi jàpp ne da ngay jaabante di aji bàkkaar ba di dañ moom loolu mbir ma demewut noonu ku tuub tuub bu dëgg lu ñu illa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan jëf ju baax moo ciy teg waaye tuub ba noppi di defaat su dul noona ci lu rëccut loola moom borom bi tabaraka wa taala du ko jéggale wallahu taala alam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na mi ngi borom këram waaye dafay feebar feebar yu bari dem ci docteur yi ñu ne ko il faut que nga wëlbati sa butu njurukaay il nga dindi ko moom daal mu ciy laaj euh, benn nee na atëb diine ñaareel ba mu ci laaj ay conseil ndax nee na moom wax dëgg yàlla pareegul pour def ko ndax bëgg na njaboot alhamdulilah li ñu tuddee limitation de naissance limitation de naissance mooy euh, dakkal ak ak jur jigéen bi dootu mën a jur moo xam dañuy dagg jurukaay ga wala dañ koy wëlbati loola fi muy dagane rek mooy su fekkee ne dundu nit ki ci boppam dafa am menace loo xam ne jàpp nañ ne su ëmbatee na mën na caa dee loolu nag la koy soxal mooy ay docteur maanaam benn docteur képp du ko soxal ak loo ko wóolu wóolu su xoolee say résultat ba ne la lii moo la war seetal keneen koo xam ne lam xam-xam na ko wala mu ëpp ko xam-xam nga laaj ko te yëgoo wuñ boo ko defee ba muy ñetti yoon ñoom ñëpp benn résultat biñ xool seen kàddu doon genn ah su boobaa nag xam ne liñ la wax lu dëgër la su boobaa de soo dakkalee njur ma def nga li la lislaam sant soo ci dëgëree bopp it nag ba gaañ sa bopp ah loolu it doo yedd kenn nag kum sa bopp ala kulli xaal na xam ne daal dindi gi moom eh, njur ma ba duutu mën a jur lay tax mu dagan mooy day wóor cëng ci yaqin ne moom mi bu ëmbatee ba kanam man na caa des su loolu xasee wóor nag te am ñu ne fàggu li fi nekk moo gën di fàggu ji leneen ba faf ñàkk yaar yëpp jazakum allahu xayran bi kii nee na dafa mos a coow ak soxnaam mu waat ni ko dootoo ma jëndalati eh, connexion waaye nee na nag ginnaaw gi fu mu fu soxna si dem jëndale connexion rek xelam danaan yar ca loola mu ni nu muy def te waatoon na alhamdulilah bu fekkee ne nit ki dafa am lu mu waat mooy giñ ko ne du ko def ba noppi wëlbati ko def ko wala mu waat ne dana ko def ba noppi defu ko su boobaa li ko war mooy kafaaratul yamin dafay leel fukki miskin wala mu wodd leen wala mu goreel ak jaam yooyu lu mu ci def rek lu mu ci def rek jaanam dana wàcc wallahu taala alam allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si mi ngi woote itali nee daal li muy laaj mooy pose ongle ak euh, yu demee noonu ima yoog yooyu ba ci pose xef ak yooyu yëpp mu ne lu ciy atteb sharia mu ne lu ci atteb sharia ndax dafa am xaritam boo xam ni daal fonk na julli bëgg na diine euh, waaye daal toujours day def lool moo tax nag mu indi ko fataawa alhamdulilah mboolem yi ñuy jëfandikoo di ko taaroo euh, dafa am ay tënk maanaam li ñu tudd ay dawaabit yoo xam ne dañ ko jullit bi da ko cee war a xool door koo jëfandikoo ba ci jëkk mooy ndax lii am na lor ci yaramu doomu aadama wala amu ko ci su seetee ba ne loolu amut ci moom benn lor ñi xool ndax am na jeexit bu muy def ci jaamu yàlla gi gum ko mën a yàqal walla munu suñ ko seetee munu koo yàqal genn jaamu yàlla la ci des mooy ñu xool lii fu jóge ndax aada ju baax ci jullit la wala aada yoo xam ne du aada jullit su fekkee ne yooyu yëpp ci na ci nag aada la joo xam ne aaday jullit la ba noppi yàqalu ko dara ci jaamu yàlla yàqalu ko dara ci wér-gu-yaram su boobaa dañuy wax ne loolu jar naa dagan naa taaroo waaye yooyu bu ci jalgatiku rek dañuy wax ne daganuta taaroo yooyu mu tudd noonu muy yokk ay we ci say we wala yokk ay xef ci say xef yooyu yëpp benn dana am lor mën naa am lor ci yaramu doomu aadama ji waaye su amul lorit aada joo xam ne du aada jullit yi feneen lañ ko jëlee kon roy dàq la boo xam ne ci ñeneen la jóge ñoo xam ne bokkul ak aada jullit yi bokkut ak bu dee nañ fii ci Afrique sax bokkut ak aada yi yi xam nga ne ay we nga jël ko weer yu mel ne weeri ganaar def ko ci say say we mu gudd gudd ay xef yoo xam ne kenn xamut yan façon xef la nga def ko ci say bët yooyu moom nekkul ay mbir yoo xam ne yu taxaw la lañ jàpp muy baaxut ci wér gi yaram ñaareel ba mën naa jeexit ci jaamu yàlla ñetteel ba aada yi ñeneen la kon loolu moom bàyyi ko rek moo jaaru wallahu taala alam waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana cheikh bi ci li muy laaj nee na yàlla subhanahu wa taala lim ni kataba rabbukum ala nafsihi arrahma ndax loolu dafay tegtal ni arrahma muy yërmande yàlla da ko bind bokkul ci ay melokaanam alhamdulilah paspasu ahlu sunna wal moo di borom bi tabaraka wa taala ay melokaanam duñ ci mbindeef ay melokaan day topp waroom borom melokaan wa ginnaaw sunu boroom tabaraka wa taala du ku ñu bind ay melokaanam duñu kuñ bind moo tax ay ay waxam muy alquranul karim ak yeneen téere yi wàccoon te nekk ci kàllaamaam yooyu kenn bindu leen lépp loo xam ne melokaanu muy ay yërmandeem bokk ci biir melokaan yooyu yi bépp melokaan woo xam ne wuñ koy melale rek subhanahu wa taala woowu melokaan ginnaaw xas nañ ko jëmale ci suñu borom rek nekkatul mbindeef ndax melokaanu ku dul du nekk mbindeef melokaanu kuy mbindeef nag mbindeef dong la mën a doon moo tax raxma jooju yi nga wax yërmande boo ko jëlee delloo ko ci nit nga ne diw sàngam ko am yërmande la su boobaa yërmande dañ koo bind waaye bu dee sun borom tabaraka wa taala nga ne ko am yërmande la kooku yërmandeem kenn bind ko wala ñoo ne ak sifatu tabiatun lil mawsuuf melokaan day topp la muy melal nu mel rek mu mel noonu loolu mooy benn bi beneen bi ci des mooy jëmmi kataba ci kàllaam ak ak ci alquran ak karim sax wala nga ne ci teg ci alquran ak sunna euh, day ñëw wolof di ko firee bind na ndax xëy na wolof kàllaama yi def boo ne woon xalaqa bind na lay wax boo ne kataba mu ne bind na loolu manqué ay vocabulaire moo ko waral ci kàllaama wolof wala ñu xam ne bind googu yi bokkul xam nga ni ki jël xalima di bind bokkul ak ki nga xam ne daa sàkk loo xam ne lu fa nekkul woon la kon xalaqa la gënoon mooy ñu firee ko sàkk na su defee kataba nag ñu ko bind na waaye teewul wolof moom yëmut ca loola li yàlla bind dañuy wax ne li yàllaa ko bind dem na ba àgg ci ki ñu bind sax mbindeef la koy tudd muy koo xam ne dañ koo bind kon baatu bind bi moom kenn mënu koo jëndee foofu dañ koo jëfandikoo ci kàllaama ko wolof waaye ñu xam ne bu dee daa jóge ci mbindeef mbindeef moom du bind sunu boroom tabaraka wa taala nag dana sàkk dana bind itam kataba ci kàllaama arab ni ma ko bëgg a waxee foofu mooy day firi farataal farataal bu fekkee da daf ko bind daf ko kataba mu jëm ci mbindeef su boobaa farataal lay doon ci moom bu ko jëmalee ci boppam nag iltisaam lay doon maanaam engagement suñu borom tabaraka wa taala lu mu jël engagement ne dana ko def dana ko def kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli yàlla bind na ne maag sama yonent danañ gaye kooku engagement la bu jógee ci suñu borom tabaraka wa taala waaye buñ ne kataba ala nag loola foofu loolu rek la mën a firi bu ne kataba rabbukum ala nafsihi mooy warlu na ci boppam yërmaande joo xam ne daf koy yërëm bindeef yi te loolu nag kenn waralu ko ci moom waaye moo ko waralu boppam bu doon ci mbindeef la jëm su boobaa farataal na lañ koy firee yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum bi tabaraka wa moo farataal ci yéen koor ni mu ko farataalee woon ci xeet yi leen jiitu kon kataba foofu li muy firi mooy farataal na kon daal kuy gàttal wax ji danga naan kataba suñ ko jëfandikoo mu jëm ci mbindeef la muy firi mooy farataal na su jëmee ci sunu borom tabaraka wa taala mooy sunu borom warlu naa def nangam. rawatina su fekkee ne araf boobu dafa jalgatee ci li ñuy wax ala naam jërëjëf cheikhana baarakallahu fiikum waffaqakum allah cheikh bi kii nee na dafa am daal loo xam ne moom la gis léegi jigéen ñi di ko di ko def mooy ku dem bay ba nekk ci biir salle d'accouchement rek day wax naan nag ko wol borom këram mu ñëw assisté ko mu ne nag ndax loolu dafa dëppoog l'islam wala l'islam terewu ko wala daal lu ciy atte ci sharia alhamdulillah jigéen ju toll ci di wasin ne nañ ko wool borom këram mu ñëw ko ala kulli xaal su fekkee ne borom këram néeg na ko fekke maanaam jafewut ci moom amul benn jafe-jafe ci moom ala terewuñ ko ko doonte nag ab teewaayam moom amu fa njëriñ l'islam daal santaane ko waaye terewu ko it nag ala kulli xaal wallahu taala laaj bii mu ngi jóge ci al ustaaz Omar Ba wax dëgg yàlla laaj bi jaar na fi ay yoon yoon am na émission sax boo xam ne spécial aju woon rek la ci wàllu azaka yu demee noonu léegi mu ni ki nga xam dafa amoon ñaari terrain pour doon bëgg après mu jaay ko mu téye fi ay at après mu jaay benn bi mu ne ndax da koy génneel azaka wala déet cheikh bi beneen laaj bi nuroog moom mooy koo xam dafa amoon ay terrain lu war a mat fukki terrain mais nag moom xelam euh, doguwul woon ci nii day dem ba mu yàgg mu jaay ko doguwul nii da koy téyel njabootam moom daal gis na ko jënd na ko yeesa ah, mu ni xëy na sama njaboot dina ko soxla ëllëg xëy na su ma ci soxlaa benn bu ma jaay ma jaay walla ñaar maanaam noonu la ko fa bàyyee ñu dem yàgg nag mu jaay ca benn wala ñaar ginnaaw ay at mu ni ndax loolu da koy génneel azaka wala déet alhamdulilah azaka ay terrain day benn borom terrain bi bi mu ko jëndee mu am yaqiin ci ne moom li mu ci bëgg mooy bàyyi ko fi ba mu jaay ko su fekkee noonu la de at mu nekk war na koo génneel asaka moom ndax marchandise la su fekkee ne mat na nisaab la muy jar te lu gën a bari ak caaree moom faaw mu jaar lu mat nisaab kon foofu moom noonu rek lay demee saa bu am at matee mu génne asakaam xeet ma ba na mu toll mu génneel ko deux virgule cinq pour cent su fekkee da koo jënd mu wóor ko ne moom jaayu ko moom caare bi moom jaayu ko da ko ko si yéenee tabax waaye daal amagul lu mu ko tabaxe su boobaa terrain bu ma noonu asaka waru waaye nag saa bu ko jaayee nag ba mu doon xaalis xaalis bi wëlbati ko am ci loxoom at su boobaa asaka da cay daal di war kon boroom ñaari terrain yeeg borom fukki terrain yi ñoo ci yem seeni at du génn mukk ñaari atte yi benn mu wóor ko ne da soxlaa jaay wala mu wóor ko ne moom mi du ko jaay waaye nag dem na ba mu yàgg am jaay bi du ci ñu foofu jaay ko su boobaa su amee ak ci loxoom ci la koy génneel asaka wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi laaj bi mi ngi jóge Vélingara kii nee na dafa am rappel bu mu waroon a jot mu toll ci deux millions trois cent et quelques mille ñu génne ci ay impôt ak i taxi jox ko un million huit cent et quelques mu ni ndax kon dina génnewaat azaka wala day doylu rek ci taxe yooyu ñu dagg ci moom alhamdulilah taxe yi ñu jël ci moom ak impôt yi loola du toog palaasu asaka ndax asaka dafa am ñoo xam ne ñoom la ko lislaam jox su fekkee jël nañ ci alalam lu toll ne asaka wala lu ko ëpp te joxuñu ko ña lislaam waxoon su boobaa asaka moom génneegu ko li wér mooy la fa des na ko cinq pour cent naam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na borom këram dafa génn àdduna juróom benn weer ba juróom ñaari weer te moom yëgu ko nee su ko yëgee naka lay jàppe yidda alhamdulilah ci borom këram génn àdduna te yëgu ko woon ko yëgee rek foofu lay tàmbalee ténj ba ténjam mat mu daal di summi naam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na da doon tuur ndox bi mu paree mu gis ma yu génn ci moom mu ne ndax day sangu farata bala moo julli wala alhamdulilah bu fekkee wóor na ko ne li génn man yu la de moom cëggaayul farata da koy war waaye nag ndax man yu la ndax man yu moom bu dee génn kenn du ko nattable te génn gu simple noonu itam li tuur ndox rek mu daal di génn loolu moom ñaari du am am na nag lu ñuy tudde alwad yu nga xam ne ñaare kii tuur ndox day génn léeg-léeg te nuroog man yi lool te du moom ndax bi génn daanaka du ko yëg ndax du ànd ak bànneex lu mel noon nag raxas ba mu set rek moo ciy war daal di jàpp waaye bu ko wóoree ni daal man nii mu ànd ak bànneex moo génn moom kooku sooy ba mu dem sangu ji wallahu taala aalam macha allah barakallahu fiikum wa jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana tont yi leer na nañ yal na yàlla subhanahu wa taala barkeel xam-xam bi wéral cër bi sàmm la sàmm sa njaboot sàmm diine ji sàmm jullit ñi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yamandi ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu